ba nam ko takkee est-ce que la Tapha nga koy nee na ko matt ko waaw walbati na ko Tapha noonu di am lu muy defaral Général di ko defaral téere yi cey làmb noonu daf may fàttali xoolal ma Xaadim Njaay xoolal ma Xaadim Njaay xaadim yaay noonu ànd ak Coly Faye Moustapha bu Faas ànd ak ki nga xamante ni mooy général bu Faas cey làmb làmb ngi noonu ñoom ñaar am na fi tàkkusaan bu ne tey ku ci nekk yaa ngi andi ñëw andi sa ñu war a bëre ñoom ñaar Moustapha Gueye ngi noonu defal na ko mooy noonu di ko wala boog demagul buñ koy kenn du yow. <laughs> kontaan nañ ci yow. na nen. général toj na nen. ñoom ñaa ngi noonu ci digg géew wi. Siteu noo gisee bii waaw comme lu nga wax rek Coly dafa toj neen général toj neen général delloo bindaat benn étoile tibb su ñeent ko ñëpp raxasoo ko ci loxo yi arbitre bi suble doom yaay. arbitre suble na la samedi il est 21h16 le 3 ñoom ñaari noonu ci digg géew bi waaye jege antoon nañu est-ce que dafa bëgg dem. waa di fàttali gars yi ñuy seetaan rek ne Coly moom lañ jàkkaarloo général moo ñu wan gannaaw. xeex nañu dafa bëgg a ñëw mais. gis nga maa ngi wax moo ko gënal parce que xam na taxaw xeex ak taxaw di xeex arrangé wu ko. mais nag naatu naatu kii kii di général xeex bee ko gënal lu mën a am. jël te baaxul mën na feeñ moom. mën na feeñ ci moom moo tax général daw. bëggoon a moom Coly Faye daw xeex bi ñëw jàppante lii mooy avantage su Coly Faye ci combat bi mais bu amoon distance taxaw xeex ak moom day métti si ku ko conseillé li ñu ko conseillé moom Coly baax na dawal nga jàpp ko. mais coup yooyu muy encaissé baaxul général coup yi mu door a ngi dal général Coly Faye mbokk yi moo ñu woon ginnaaw ngemboo ngembul vert li teg ci bu weex bi Coly moo ngemboo ngembul lu ñuul li général la ngay lu nga wax rek coup yooyu baaxul mais coup yi seew da lay sa kanam gi rek. mais moo gënoon mu taxaw nar a bagaar moom ku yooyu ñooy gën a métti dóor mu daanu xajoon na si mais daa qualifié ni mu def ànd naa si général yi na fexe bu ko mënta daan fii buñ génnee seen jàppante bii nii buñ taxawaatee na bañ teel a jàppante bi pour bagaar moom xeex ak moom mën a am dam lu yomb si moom. moom général moom général looloo koy taxaw xeex moom waaye qualifié du nangu loolu benn yoon. Coly Faye du nangu lool moo tax it xañ na ko lu mu bëggoon xañ na ko lu général bëggoon andi ko loo xamante ni moom Coly Faye moom la bëgg mbër chaque jour rek da naxante sa adversaire bu bëggee lii da nga koy xañ loolu ko lu nga bëgg yow wax dëgg yàlla Coly Faye lu mu teg première pas ànd naa seeg moom général moo war a daw jàppante bi di ko ñam gauche di arrière mais Coly mayu ko loolu yëpp dafa daw ñëw jàppante nag moo tax général ngay xeex mais Coly Faye jàpp bu yàgg bii mu jàpp enjeu ko mbër fekkee xeex enjeu soo jàppee da ngay fexee liggéey mais saa boo jàppee taxaw kuu yi gëm naa ne bu siggee dina dem ardo de ndax ku yëpp a ngi daal ci kanam gi bu siggee dina dem ardo te bu demee ardo ñëwaat combat bi day gën a métti si moom parce que général day daw boobaa teel a jàppante bi comme lu nga wax rek mbër bu la wër a ne xeex arrangé wu la bëree moo boo dawee jàpp da ngay fexe bëree fa mais qualifié nga jël coup yu métti mu ngi jël ay coups ci suuf boo xoolee général da nga koy rokk. ay boobu de bu ñaaree ma am leneen lu ma ci lu ma lu ma ca na mooy si moom moom moom qualifié général moo ko sut bu bëggee siggi di ko dóor bala moo sëggaatee bay ñëw day fekk général def lu mu bëgg a def. waaw waaw da koy sàcc. général la ngay dóor waaye qualifié nga koy ñuuxu. mbokk yi journée sans production. lamb jaa ngi noonu maa andi ceeg si te taalibe Bamba bi. waaw waaw te général boobu noonu na na moytu na qualifié bañ mu jàpp bu baax. général bu jàppee bu baax rek mën naa bëree lu mu bëgg a parce que moo ko sut mën na kaa fàq mu ñëw wala mu tuur ko mu jàll. waa gis nga kontaan naa ci yow Siteu làmb ngi noonu général bu Faas Coly Faye bu Thiaroye kii Xadim Ndiaye ko andi ak Coly moom général maa ngi gis Tafa Gueye gis ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñëpp a ngi ginnaam waa Fass a ngi ginnaam njort naa ardo dina ci am yoon wala boog. abit baa ngi wax ak ñoom abit bi sulle waat na. ah dafa am ku dóor sa morom général moo ko dóor ku boo xamante ne koo dóor foofu mu ko dóor. kon ca loo la ko dóor. waaw looloo tax arbitre àtte parce que dafa am foo xamante ne dañuy ba règlement da koy bañ. waaye waaye waa Fass dañoo bàyyi pexe. est-ce ñu tàqali ko mu taxaw jàkkaarloo waat mu xeex ak moom. mooy lu ma la wax rek moo tax man la demoon ardo wala leneen am si far yàlla dogal mu dóor ko coup boo xamante ne. Eh, laaw boobu baaxul kolifay laaw boobu baaxul. laaw bi baaxul te dafa laaw ba pare jàllale ba ko xooloon da koy dóor mu wàcce te général li la bëggoon ci combat bi moo tax mu fekk yàq. bi muy wax yëpp du dëgg ci moom. non da ko bëgg a sàcc ñoom mais général moo ko du moom du ma ko ndax ni muy sooboo yëpp bëgg a jàppante la te bés bu ko bés bu ko Sénégal xoolee bu ko dóoree dina daanu lu nga waxoon sànq rek fa laa jëm si gis nga bëgg jàppante boo ko bëggee trop te bu jàppee doo def dara jarul ngay bëgg a jàpp ba forcer sa sa demin parce que am na demin boo xam ne boo ko forcer rek boo demee la boo fekk du baax na tee rek ba gis yoon mu doo ko dem moo gën a wóor lamb lamb ngi noonu sitaa ngi noonu la kolifay euh, dóor na kolifay dóor na kolifay bu bëggee jàpp bu bëggee jàpp Sénégal day daw sàcc ko waaye saa bu bu saaganul dina ci gis du ko bett lool. te kolifay ni muy dóoree day bëgg jiital tànk bii nii bëgg jël loxo ba le dóoree ko. àndul àndul loolu àndul loxo bu tànk bu nga jiital rek loxo boobu mooy njëkk a dem à tout bu dee da ngaa doog a déclenché un la ñaar yëpp di dem mais nu muy def nii daal na moytu loolu. su la déggee mooy kolifay dese naa mën xeex. de xeexam bi des na gis nga gis nga nu muy dóoree buy dóor day jóg carrément te loolu ba xeex dina ci Khadim noonu mënul taxaw Coly Faye Coly Faye daw na jël tànk général dañ na ko ah, Coly Faye ah lu lan moo xew lan moo xew Coly Faye daw na ko na ko sama bàjjen yéeme na nañ déglu arbitre. su doon maa arbitre dama leen di woowaat. waaw waaw. waaw waaw su doon maa arbitre dama leen di woowaat. les cent pour arbitre. su doon maa arbitre bi dama leen di woowaat woowaat na leen. gis nga général macha allah rappelé ko bu doon liggéey sànq di ko daw athlète boobu feeñ na si parce que da jël mu daw. dëj ko ànd ak ko ànd moom. général Coly arbitre sifflé waat na ci diggante général Coly Faye général mooy wan ginnaaw Coly Faye lañ jàkkaar lool songu nañu léegi Coly jël tànk général dëj ko général tuug ko arbitre waat leen ci diggi géew bi général a ngi dox ci Coly Faye a ngi dox ci kaw général. Coly a ngi dox ci kaw général la woon fa woon rek parce que Coly moom ala Coly aar rek moom songu bi la bëgg mais général na loxoy di dem loxoy na koo bàyyi booy bi bañ a am accès du ma ñu yegg mais bu bankee loxo yi bëgg a xaar ba boobi yëg si mu doog a dóor du avantage am moom général ah, loxo bi dafa cax muy dem bu ko du mën a du du du mën a a jege du mën a am accès pour jege la mais mbër boo suteeku ngay bëreel ba pare bëgg a bëreeg moom ne tànk yegg wu sa kaw doo dóor loolu noonu ànduma ah, si loxo bi da koo bàyyi muy dem loolu da koy jeune ba du mën a songu boo gisee buntu na nga daw doo ko def lu ngay def maanaam na ko koy tàllal daal jeune ko waaw da ko koy tàllal bañ muy ñëw nga koy freiné quoi man dama bëgg mbër muy toll si bi day dem na bëree loolu moom général général Coly Faye général Coly Faye. Coly day ñëwaat de. day ñëwaat kay. maa la wax loolu parce que taxaw jàmmaarloo bi arrangé ko am Diop Anil Ndiaye arrangé wul maa la wax loolu de day ñëwaat de. ndaama da mel ni baabooy daw jël sa tànk lal tegal ko fos garde wala nga tegal ko garde normal xool ko crochet droite ba daw appel bu bu ne jëy nga daw wàcc la ak moom. man nga ko bakkate takk centre de presse man nga taxabal man nga def loo neex mais xale yi dañoo war a jàngi bëree. xale yi dañoo war a jàngi lamb de chaque jour rek si nekk sa xam-xam. waaw Coly door na. général anière na 1-2 wàcc ko fa Kuuba. waaw waaw. ba ñoom ñaar ñu ngi léewtoowaat Coly Faye général général moo ñu wan gannaaw Coly moom lañ jàkkaar lool. gisoo na ñoom ñaar dañoo ñamante léegi moo tax ku ci nekkee ngi taxaw téye sa bopp. ah góor nag bala ngaa mi bala nga nu ko olof Ndiaye di waxee góor xaw ma bala ngaa lanee sa morom. balaa nga koo yab. wala a foo ngeen foo ngeen laale. waaw waaw léegi looloo fa am dañoo laale ñoom ñaar instant kenn ku nekk da nga jox sa morom. respect dinaa la nettali dara. muy lan. Euh, dafa am ku doon xeex benn waay. Mm-hmm. xeex ak moom duma ko mu xeex ak waa ji waa ji duma ko. Mm-hmm. mu gis ko muy xeex ak keneen. mu ñëw ne àtte leen kii ko lu tax Coly Faye waaw waaw door na ko léegi. général gëddaat na. général door na ko léegi Coly Faye dellu gannaaw. Coly Faye xeex bi waxu ci dara bëree la bëgg. moo tax amagul buntu fi mu toll amagul buntu pour bëree parce que bu mu amoon sànq bu njëkk bañ jàppante pour mu amaat ko day xaw a métti mais nag mais mu am loolu faw mu faw lii mu évité nii faw mu def ko waaw xeex faw mu xeex ak moom mën koo daw sàcc mais bu bëggee ñëw rek yooru du sotti ndax buy ñëw dañ koy gis dañ koy gis te mooy du coup bu bañee bu bëggee jàpp alfa mu jéem a jël benn coup gis nga te saa bu général mébee rek loxo bi ak gardam mu la mu maa la wax loolu. defoon na na ko si mook. moo gàmmu gay. ndeysaanam gis nga ko. wàcc gi muy wàcc moom ndaama la su wàccee day gën a suufee. ba mu ko defee moo kewel kewel da ko dóor mu toog. arbitre sublewaat mu ñëwaat kewel waat ko fa. daan ko jël bu rëy. loolu Iba Mar la woon saanam avertissement qualifié. arbitre bi diggante qualifié ba tey la. ak général. loo si man ta xam ne waaye Iba Mar moom ñëw nañ dañuy jàppale. lamba ja jeex n bu yàgg diggante ndongolo la woon. Cheikh Tidiane général Coly Faye. mu ne ko laamu joo jeex na ñun ñu ngi si général ndeysaanam ak Coly Faye ba léegi daal dara amagul. déet aw ma aw ma mbër. sa mbër yi woo daal. eh Coly Faye dugal na général dugal bi muy dem. loxo bi bu koy muy dem day am avantage avantage bu baax a baax moom général mais loxo bu mu ko téye. daa wàcc. garde gi daa wàcc général nag xam na lool na bàyyi loxo bi muy dem. ñoo ngay liwaatoo ñoom ñaar. te Coly Faye bu général di dóor boo xoolee ci biir day. général jàpp général jàppante bi bugg ci dara fi mu toll nii xam na ne xeex bi mooy avantage am. xeex bi mooy avantage am xeex déplacement xeex latéral xeex avance loolooy avantage am ci combat bi. bu jàppante rek mën na see am ndam si jàppante mais jàppante bi du ko arrangé lu mu ci bëgg du ko am. oo oh, Coly Faye na lee coup bu daal. dóor na ko daal léegi loxo bi bu koy dóoree dina am dara mais mënoo jiital tànk yi ba di bëgg dóoree loxo bele loolu laa doon wax sànq. mënoo teg pied droite bëgg a jëlee fee gauche wala laaw ko muy dem. moo tax saay bu saay bu mébee pour dóor rek général da koy gis day avancé mais gis nga tànk ba mu jiital ba mu yóbboon loxo bu mu a dem da koo dal mbëri al foog ñuy xalaat si loolu. général Coly Faye général laaw na léegi waaye dalul. waaw waaw général ba léegi rek gis nga. ba leen di dugal mais général déplacement ba gaaw dafa xaar kuuba. général Coly kii Khadim Ndiaye ko kii suñu papa Moustapha Gueye ko andi moom ñoo noonu ci digg géew bi. général Coly général moom da léegi dóor waa dalul. général Coly général a koy natt. Coly Faye xeex naa moom léegi waaye xeex ba baaxul jël na ko jël na ko jël na ko eh, Coly na yooru Coly Faye xeex ba doomu daanu di ci am. waaw waaw Coly Faye daa yooru léegi na mu yooru baaxul yooru du avantage am na yëpp doo dem mu yooru. ab njool képp ko yootu di ko jëli. kuy bëreeg général doo yooru wallahi yebal ba fees nga dem boo yooroo rek doo gis client da ngay waaye di xeex nañ xeex bu métti na bàyyi yooru bi Coly Faye da dëggal boppam bu gisee lu leer mu doo ko dem bu mu jaay combat bi. Coly général. xeex nañ léegi. xeex bu sax am Diop andil Ndiaye. général a ngi noonu. Coly Faye nag boo xoolee baa ngi commencé dem de. yaa ngi koy gis noonu. Ah, a ku muy jël a tax. bët baa ngi commencé dem de nañ sóoraale loolu tamit de. est-ce que tamit général du mujj dooli foofu lamb ji am nu mu demee. Ah, ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn. gis nga mu ngi koy tooñaa xeex bi Coly Faye jéem a yëkkati waa loxo mu mën a xeex moom parce que xam ne avantage am xeex bi moom te boo xoolee coono am na ku muy commencé feeñ ndànk-ndànk nag. général Coly Faye. waaw waaw xeex nañ xeex bu neex macha allah cooy làmb làmb neex ta métti. mu ne ko ta métti Ousseynou doom yaay. général Coly ñoom ñaar ñoo ngi noonu ci digg géew bi. général nag léegi moo doon may woon damay jëm a attaqué combat bi lu des nag. waaw parce que instant yi fu mu toll nii ñamante nañ ko te général lu mu bëgg mooy xeex bi Coly lu mu bëgg mooy ñëw bi te général mayatu ko mu am accès si si yaram bi kon nag général na taxaw moom commencé xeexaw moom nag waaw. ñoo ngi Coly door na ko léegi. général door na. baaxul kay. général Coly Faye gis nga. waaw xeex général Coly Faye. bu ko am waaw waaw général daw na jëli ko. Oh, Coly génn na ko dóor ko kuubu dal. waaw waaw. génn na ko dóor ko attaqué parce que am na atu moo tax dafa am atu. da ko génn dugal ko kuu am na atu. léegi da koy ñemewaat moom it moom Coly Faye. ji neex na waay. général Coly Faye. ne ko lamb ji neex na. ñoom ñaar ngay bëre di xeex. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi wane ne lii moom grand combat la war a mel. fi mu toll nii nag ñoo ngi récupéré. bu coono feeñee rek lamb ji parce que kenn day bàyyeeku. te lamb ji moom balaa kenn di bàyyeekoo ne jël la am nañ bëree. gis nga eh, Coly dóoraat na Coly Faye bugguma loolu. Coly dóor na dóoraat. général waaw waaw général. da ko si xeex bi général. di gisoo da koy gëdd. gis na ne ko non non non qualifié ngay signalé moo am droit àtte arbitre na oh général na ardo bu ñëwee nag lamb ji dina neex a neex a neex parce que xeex la ñuy ñoom ñaar ñëpp bi sifflé waat na ci diggante général Coly Faye dem na léegi ardo dellu si waat ñoo ngi liwaatoo ñoom ñaar ñoo ci digg géew bi général Coly Faye ñoo ngi liwaatoo waaw lay demee gannaaw ba Coly Faye yóbboo ardo mu ne ko nañu ànd dem mais daal boo gisee si général moo demoon ardo fomp na ñëwaat na arbitre suble waat na mais na xam naa lu temps bi lu si des ñu miit ànd bëreetul wax dëgg yàlla mais daal lu si waaye mën a xam daal lamb ji teel naa métti trop xeex nañ wane nañ fi bëree ñoom ñaar sit bu njëkk bi wax dëgg yàlla wane nañ bëree kii daw na jël ko kii dëj ko at bi woote waat def lu rafet def loo xamante ni ñëpp a si kontaan mais ba ñëwaatee ba léegi xeex bi daal moo bëggum bëree bi tamit bëree bi bu dee ñaari sit la boobu moo si amagum ak ba général dawee jël ko qualifié génn ko tuur ko dóor ko épercute bi. ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar temps jeex na. arbitre bi siflewaat na. ci diggante général qualifié bëri nañ ba mi-temps dellusiwaat. général moo ñu won ginnaaw qualifié lañ jàkkaar lool. deuxième round bi yaakaar naa nag bi moom lamb ji dañ fa war a mën a jeexee si bëree diggante général la ba tey ak Coly Faye numéro 2 waaw waaw ndeysaanam ku si nekk daal da ngaa boot sa cumbukaay loolu lamb ji métti métti yaa ngi woon sa cumbukaay gannaaw diggante général ndeysaanam ak Coly Faye waaw waaw ba léegi général mu ngi bàyyi loxo bi ndànk-ndànk Coly Faye ba léegi ñoom ñaar waaw waaw Coly général Coly Faye ndeysaanam ba léegi dara amagul deuxième round général la ak Coly Faye Coly Faye nga ah. Coly Faye général waaw waaw ah Coly door na dooraat na Coly Coly. bilaay da koy général dugal na benn coup léegi moom it dugalaat na général oh général loolu baaxul général loolu baaxul lamb kenn du ko jeexalee noonu Coly Faye moytul Coly Faye moytul général Coly Faye Coly Faye da oh, lamb yi ku ne waaw la ilaha illallah coy combat bi général ñoo ngi jixaat ñoom ñaar. ñu ngi jixaat Ousseyn jixaat bu neex. Coly général mu Faas dañoo ñamante ku ci nekk daa xam sa moom la muy saf xale yaa ngi noonu. xale yaa noonu ba léegi ñoom ñaar général Coly ba léegi daal xeex bi daal mëppagum bëree bi rek général dafa bëgg a jeexal lamb ji na mboytu mu jog daje qualifié moom it général waaw waaw Ousseyn lamb ji yàgg nag. man de yaakaaroon naa ne bu ñu xeexee général duma ko waaye qualifié mii tey bett na ma maa ngi nuyu Modou Anta moo ngi fee xam naa fee la jógee Iba Mar ma laaj combat ma ko ñoo ngi sama seex bi Modou Anta sans frontière sama doomu yaay la ma ne ko kooku sama mbok la Modou Anta. su ma seen bii foo ma <laughs> général ak Coly Faye numéro 2 ndeysaanam nee naa la kii Khadim Ndiaye ko andi moom Coly Faye général. Tafa ko andi. général. Tafa Gueye moo andi. ndeysaanam Tafa Gueye bi moo léegi ne ko. lu la wax. Euh, yaa andi ki nga xamante ne mooy général Khadim Ndiaye andi Tafa mu ne bu ngeen ma tëkkaleeg moom ma bàyyi ndax niveau yi yemul. nga ñëwaat fa nga ne lu Xaadim Njaay lu Tapha Gueye. Eh, Coly lay def nii. day xeex moom général Coly Faye bul daw bul daw général. Coly Faye laa ilaaha illallah. waaye ngi noonu. làmba ngi noonu. ñoo ngay xeex Coly Faye général. Coly Faye général. Coly Faye tànk boobu Coly lu muy daw noonu. lii yëpp ci feemu làmb la. ay feem ay feemu làmb la. dama na ko yaa andi général Khadim Ndiaye mu andi Coly mu ne ma bul ma tëkkaleeg moom maa ngi moom niveau yi yemul soo ma ko laajaatee ma dem bàyyi la. ah perte faa ngay lu wax yéeme na de niveau yi ñaar. jàppante bi nag xanaa ne wax dëgg yàlla combat bi war na bi yoon. mais nag mais mais mais général su jàppante loxo bi wowul bàyyee noonu suñ jàppante nii sama xel dafay dem ci Garga Mbossé Bébé Saloum. nit ci bu ngeen ëñantee da ngay jàpp waaye du ëñ bàyyi sa loxo muy lang bu la fàqee da ngay ñëw di ko ñaanal yàlla moom Bébé Saloum yàlla del si waat parce que caabi da koo féetoo gannaaw mais ñu ngi koy ñaanal yàlla mu del si waat si njabootam laay lamb namm nañ ko moom ak Bébé Diène yëpp ndeysaan Bébé Diène ndaanaal bi moom it combat bi yàgg na ci diggante général ak Coly Faye général ak Coly usu banne sama xarit sama doom yaay maa ngi lay siyaare. maa ngi lay siyaare maa ngi lay doole siyaar baay. ndeysaan ñu ngi nii rek di sant bu baax a baax. ñu grand combat baa nekk nii diggante général ak Coly ñoom ñaar xeex bi métti na yàgg na. waaw combat bi xeex na trop quoi parce que ñu ngi xeex xeex métti ñu ngi bëre tamit combat bi neex na trop. ndeysaan Ousseyn ah. ah. fàq na ko Ousseyn sa waay ngi door de. Coly Faye li ma waxoon tamit man bett na ma de xeex bu ma indi tey nii. Coly dafa mujjee ñeme général. dafa mujj ñeme parce que tamit ñeme moo tax fi mu toll nii xeex bi bañatu ci dara. bañatu ci dara parce que day daw jël ko ba nu ko neexee. dóor ma fayu lay def boo gisee léegi bu lewaatoo bi mu neex ko mu daw dag lewaatoo bi demee day wane ne la nekkoon ci moom wala la doon xaar ci général gisu ko moo tax fi mu toll nii dafa taxaw décider dëggal boppam boo xoolee général commencement ba nam doon demee di ko attaqué di ko dóor fi mu a taxaw téye boppam tuuti ndax la mu foogoon ci Coly fekk na duubulam ci qualifier moom moom moom général. est-ce que tamit général yoon la woon muy taxaw di xaar ba qualifier di ko ñeme. du woon yoon abi dafa woon siffle rek pénali tàkk nu golo xam bootee doomam. wallaahi Ouzin billaahi général loo nekkoon bëri ma abi day suble rek mu dox ci koom ak ay xeex nu mu am te sóoraale suuf gi mais ba mu ba qualifier ñeme ko. gis nga ko qualifier day léew to ba nu ko neexee mu andil ko xeex buñ dooree am Diop andil te loo ci xamul fi mu toll nii bu ko neexee taxaw bu ko neexee dem fi mu toon taxaw na dara xew bu tàkkee bali jóg. bali jóg bu taxawaatee. mu taxaw rek ndax la général foogoon wala la mu andi woon dafa ñëw fekk duubulam ci kolifay moo tax fi mu toll nii kolifay mooy diriger. waaye kon nag kolifay na attaqué nag jéem ñoo libéré. ñoo ngi noonu waaye bu yàggee entraînement feeñ condition physique feeñ doole wàññeeku. mais lamb bu tollee fii course yi lan lañ mën a jëriñ. yaa ngi laaj loo am li yeggali parce que damaa gis ne làmb am na fu muy yegg ñu bëree ba nar a mi-temps wala ba romb 15 minutes bu ñu demee mi war na la mën a woo ku nekk mu wax ak yow ne boo demee defal lii defal lii mais coach daal la nga ñëw ñu may la ndox nga naan pare nañ suñu père Serigne Ndiaye boo ko xoolee mu too ci seize waaye boobu ba léegi moo ngi réagir Khadim tamit moo ngi jaabante père Tafa Gueye gisuma ko waaye xam naa ni la yaa ngi ci jàmm Baye Balla mbub Baye Balla nday saanam borom Bantamba xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Coly Faye numéro 2 bu ma juumul Coly Faye moo am trois avertissement général am ñaar waaw kon lamb ji bu bu jeexee nii général mooy am ndam si kaw Coly bu ñu continuer nii général mooy am ndam moo tax boo xoolee sànq ba léegi général moo ngi koy jéem a gëdd bu jegee saako rek dal seetlu lool saa bu Coly Faye jegee yi général da koy accélérer bëgg mu génn waaye Coly Faye day naan lool dellu siwaat ci digg bi moo taxit ñoo ngi doxal ñoom ñaar ñoo ngi lewaatoo. est que léegi laajul ko su bi wax ko ne ko combat bi bu jeexee ni da ngay ñàkk jéemal a jéemal a attaqué nga dem bëree pour am dam man dama ragal ne coach yi sax dañ leen jàpp ci mystique. ah man de coach léegi moom jaaxal na ma moom. ah ñoo ngay toog di seetaan de waaye xale yaa ci digg géew bi ci diggante général Coly Faye. ah c'est tamit du doon yoon père Khadim Ndiaye toog fee père Moustapha Gueye toog fële wala tamit comme ni ñu nekkee si biti de bañ bañ mi temps ñu mën a dugg wax ak mbëri waaw xam nga léegi règlement CNG bi dafa xaw a saturé ndax boo xoolee porte yi gendarmerie dañ ciy taxaw ñi nekk CNG dañ ci taxaw soo ñëwee doo am accès ñu bàyyi la nga jàll ba arbitre xasee sifflé ki nga xamante moo toog 16 ba rek la ñuy bàyyi mu dugg ci biir ak arbitre yi saa boo ñëwee dañ lay téye loolu moo tax xam naa duñ mën a am accès ci biir mbokk yi di leen fàttali suba fi am na combat yu neex dox ci diggante Gris 2 Abdou Diouf bu ñu demee Iba Mar maa fay gis euh, ma Mballa Mbaye guy gi. Boy Dakar ak. Euh, Malick Gakou Gakou 2. Gakou 2. Petit Ndiaye <laughs> Kalso Kalso suñ doomu yaay dafay bëreeg. Paris ba way sama combat. wala Ousseyn ba way suñ combat. ba way suñ na pour Coly Faye. 4. 2. 2 pour général 4 pour Coly Faye. dafa mel ni bu benn avertissement amee 3 am na trois avertissement général am na deux ba léegi ñoo ñaar daal ginnaaw bañ li premier mi-temps bi sax moo dàqoon bi mooy li ma lay wax dañoo ñamante li naan ku ku mos jàkkaarloo xam na jëw a dàq fi mu toll nii signature doon jëwante waaye biñ jàkkaarloo qualifié taxaw ne maa ngi nii général taxaw ne maa ngi nii. billaay li li ma sa maam daan wax rek nee na ma ku xamul ku xamul sa njëg di nga xam loo jaayee sa bopp. maa la wax loolu. waaye fu ci nekk fi mu toll nii ku ci nekk xam nga li sa waa li sa morom di jar. ba tax na ñëw noonu ci digg géew bi. est-ce que bi lu avance bi yàggoon wala boog lu ko corona bi nëbboon ma dox ñu ñu bëgg a yàggal affaire yi. waaw non lool nag da ciy feeñ parce que boo xoolee ñoom ñaar xam ne ku ci nekk liggéey nga ndax combat boo xoolee mën na at général bi ma ko carré fii sànq ne ko la mot na nga wax mu ne lan laay wax ku toog un an waxuloo di entraîné bés bi jot jëf dong moo ci des. jëf a gën wax waaw. nee na ma nag bàyyi après bu ci calmé boo déggee ñu jëf moo tax fi mu toll nii ñoo ngi jëflante ñoom ñaar. waaw waaw jëf nañ de mais déggal Coly Faye mu ngi naan ko bëreel. waaw waaw Coly Faye mu ngi naan ko bëreel. mais daal premier combat bi mu gaawee deuxième combat bi mu gaawee troisième combat bi nañ gaawee ay bu ko lamb ji ba si spécial bi. kon yaakaar naa jógee nañ fi. moo ngi noonu. ci diggante général Coly général Coly Faye Coly Faye léegi daa garde bi rek Fallou xanaa sonn. <laughs> tey général Ouzin ba léegi dara amagul. ñooñu noonu ci digg géew bi lamb bi dafa yàgg waaye ni mu yàggee tamit taxawuñ ci seetaan ñoo ngay jëflante ñoom ñaar ñoo ngi xeex ñoo ngi bëri waaye fi mu toll ku ci nekk ngay taxaw di déglu sa morom lii la lamb yi. ku si nekk ngi taxaw di déglu sa moroom mais ku si nekk na jëf dajeeg sa morom moo gën ku si nekk yaakaar naa taxaw di déglu sa morom Ouzin. waaw fi toll nii nag. calcul la calcul la waaw. Coly Faye ah ma ji ragal naa ma jeexal position arbitre de 4 Coly Faye ah parce que général expérience face lay doxee. Coly moo war a ñëw jeexal lamb ji jamono ji bu ko jeexalu général li la koy seere bu ñu amaatee ku nekk avertissement lamb ji jeex mu am victoire. léegi nag xoolal général fi dafay bëgg a ki nga xamante ni mooy Coly Faye pour mu ñëw jaayu wala boog mu juum mu daan ko mais Coly bu bu bu maturé na ko déglu temps bi jeexagul temps bi jeexagul te bu mu jege saako benn yoon na toog ci ay tànkam xeex ak moom su ko mënee jëli jëli ko général tamit na fermer garde bi dox ci kaw kolifay loolu mooy avantage parce que fi mu toll nii moom am na 3 kii di kolifay am na 4 avertissement soo maatee benn dañ koy jox ndam moo tax fi mu toll nii làmb ji nag yaakaar naa dina jeexee fii wala lu neex dina fi génn léegi léegi. lu neex dina si ma a génn wala mu jeexee nii parce que général am na 3 avertissement kële am na 4. Colifay Colifay benn général da koy jéem a moom Colifay day jéem a ñëw dox ci kaw général pour jeexal lamb ji pour am ndam wala général jéem a anière mu am avertissement ñoom ñaar ñu tolloo mais daal wax dëgg yàlla comme lu Ousseyn wax rek Colifay bu amee expérience dëgg mooy na dem jéem a bëree ji lu mu am jël parce que lamb ji bu jeexee ñu tamit du ko neex na jéem a dem bëree ji bu général génnee wala mu anière ñu tolloo avertissement. waaw moo tax gis ngeen général Coly Faye Coly Faye ak général ndeysaanam Coly Faye général Youssou Ndour a ngi noonu borom victoire bu rëy bi doomu suñu papa père Balla Gaye la moo fi daan Bébé Diouldé barki démb ak Ndiaye ndeysaanam aussi na lamb ji daal lu may ragal mu jeexe par décision arbitre Coly na xam ne am na carte avertissement na jéem a jël initiative pour dem bëree ji lu mu am baax na bu jeexee nii daal wax dëgg yàlla ah dina xaw a bett gars yi parce que lamb ji séntu woon nañ si ëllëg gàng. mais nag mais nag général fi mu toll nii day jéem a combat bi rek ndax benn avertissement ah. Père Bour a ngi doon nga ne Père Bour. tey moo ma jaaxal bañ laay xam. Père Bour xamoo foo aaye. bañ laay xam nga dimbali leen ma. ah koo gën a bëgg ah, a neex rek. ah surtout yow saytaan nga yow. déggal ngi noonu Abid yaa ngi wax ak ñaari mbër yi. wax na leen taxaw déglu leer rek. daanu. mais temps bi jeex na wala jeexul temps bi jeex na wala jeexul. arbitre kan lay jox victoire bi. Coly Faye nee na ko général daan nga. bu njëkk loxo da nga war a jël initiative dem bëree général am na ndam. lu nga wax rek indiwul daanu. général te pare daanu. ndax waa Thiaroye yëpp dañoo génn. Coly